di ñëw ci yow ci programme Barthélémy Dias bi euh, ensemble marchons vers l'essentiel euh, Barth am na programme programme bi nag euh, Sénégal la ko daal di tuddee daal dina lim yi nga xamante ne benn bu ci nekk lan lay signifier dégg nga ma wax ko tontu Fall léegi tey nanga gisee programme Barthélémy Dias bi. tout d'abord appuyer père. c'est li mu mhm. wax noonu c'est important. Mhm. parce que président Ousmane Sonko référentiel deux mille cinquante bi moom lay defee campagne. Mhm. expliquer pôle bu mu dem expliquer leen yéene bi fa état am ne pôle bi li lañ fi fas yéene yéene def bu amee euh, euh, majorité foofu ci assemblée nationale parce que moom mooy permettre pour liggéey boobu mën a antu sinon boo amul majorité bi lépp lu fa ñëw dañ koy bloqué. Mhm. te suñ ko bloqué loolu doo ko mën a mettre en œuvre. c'est important donc euh, à par rapport ak question peut-être ñu bari duñ fa xoolee. muy lan fan ngay xalaatee. Ah, parce que apprécier nga bu baax par rapport ak programme bi. Mhm. te gis naa ñu bari ñu bind ne. Mhm. Euh, sàmm sa kàddu ñoom am nañ programme. Mhm. non dafa rusloo dafa rusloo dafa rusloo. lu tax nga wax loolu. gàcce la liñ génne gàcce la. lu tax mu nekk gàcce. gàcce la billaay gàcce bu rëy bu rëy bu rëy mooy seen programme boobu noonu. Barth nee na ñoom Sénégal lañ jël Sénégal. parce que comme gis na ne. président Ousmane Sonko mu ngi campagne référentiel deux mille cinquante bi Sénégal deux mille cinquante comme nekk na vision Sénégal deux mille cinquante ñoom faaw ñu wut Sénégal. dégg wala nga ni. vision deux mille cinquante. Mhm. maanaam Sénégal deux mille cinquante. comme mhm. ñun def nañ Sénégal deux cinquante. ñoom mhm. li ñuy def faaw mu am Sénégal. moo tax ñu tuddee ko Sénégal ñuy def li ñuy wax faaw ñu am cinq faaw mu am Sénégal li ñuy wax. dañ ko def te ndax li ñu fi wax acronyme mooy seen programme acronyme mhm. acronyme acronyme mooy comme Sénégal ñoom niñ ko defee acronyme la OMVS CEDEAO ay acronyme lañ maanaam lettre bu ne am na lu muy signifier loolu ay acronyme mhm. mën nañ ko def benn moo lire ko mhm. comme ñoom niñ def Sénégal fi mu ne senegal Sénégal mën nga ko liir mais ñoom S bi dafa am luñ ko wutal E ñu am luñ ko wutal nangam nangam ñu am luñ ko wutal e def ko acronyme très bien ñoom acronyme mooy seen programme te acronyme acronyme mënul nekk programme. moom moom sax Pape moo ko mayul temps mais nee ko boo bëggoon ma faram fàcceel la ko. Euh, donc kon seetaan naa ko seetaan naa ko ba mu jeex. waaw Pape bi mu ko laajee programme bi. Mhm. moom moo fa nekk dagg ma deux minutes mhm. mais moom dafa mel ni ku bëggul woon wax ci programme bi. bu ko Pape Ngagne Ndiaye laajee si programme bi xulloo la ko indi. Mhm. ba mujj gi Pape Ngagne Ndiaye moo ne waa waxal du wax pour ko à maanaam pour mu wax par force. mu ne seen programme Sénégal la tudd mu ne S bi mu ngi signifier social. Mhm. E bi équitable. équitable. bi novateur. E bi enrichissant. G bi. gagnant gagnant A bi ambitieux. Mhm. L bi loyal. li gàcce la. loyal au président de la xaw ma luñ ci jublu. Ah, la président de la République. la xam nga tax ma ne gàcce. lu tax gàcce la. xam nga lii lay ça ressemble nest pas à une formation n'est-ce pas en entrepreneuriat wala à une formation en développement personnel. entrepreneuriat. wala développement personnel. développement personnel. lu tax na wax loolu. déglu xam nga lii mu ngi mel ni tey jii ñu laaj la quelles sont les caractéristiques d'un bon leader. nga ne un leader un bon leader doit être social exemple un bon leader doit être équitable wala un bon leader doit être novateur ainsi de suite ainsi de suite. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. li ay qualité lañ indi. Mm-hmm. utiliser ay adjectif novateur mooy kiy innover. Mm-hmm. maanaam innovation. oui wàllum innovation. Mm-hmm. mais liñ def nii liñ wax nii li Barthélémy Dias wax démb. du programme. du programme lan ni mu décortiquer Sénégal moo tax dafa amoon bi muy bi ko bi ko Pape Ngagne Ndiaye bàyyi temps bi pour mu expliquer programme bi dafa amoon ay difficulté mënul expliquer programme mhm. maanaam wax na acronyme bi mais lu ne mënu ko wax carrément lan lañ ci am yéene. maanaam social ci wàllum lan. social ci équitable ci wàllum lan xam nga xam nga xam nga si lan la bëgg mujj gi à un xam nga la doon faire allusion. Hmm. seen programme taxawu Dakar xaw ma taxawu Sénégal taxawu Dakar sax seen maire bi mujj gi si maire bi la wax. maanaam dafa amoon ay difficulté pour expliquer acronyme bi mu joxe bu gi si seen maire la doon wax vole social bax lañ daan def ci mair bax li ñu war a def mhm. mais côté assemblée nationale fàtte ko bu yàgg te li leen tax a nekkul lenn lu dul assemblée nationale am na sax ñu ne programme bi maa la wax loolu démb dama koo seetaan ba mu jeex damay seetaan di reetaan di bind di reetaan ma ne lii lii mooy seen programme lii acronyme bi mooy seen programme acronyme bi lii lañ ci fas yéene def maanaam adjectif yi ñu joxe ne moom mooy seen programme laalul daray économie lii Barthélemy jaal présenté démb jegewul sax ak économie. nu mu gën a jege. jegewul sax si ay n'est-ce pas ay projet de loi yoo xam ne mën na indi coppite dara si assemblée nationale wala mën na am lu mu participer ci développement réew mi. Mhm. xam nga lan la. Mhm. développement personnel. gagnant gagnant. indi na wax na gagnant gagnant gañaa gagnant si assemblée nationale si lan. gagnant gagnant boobu si biir assemblée nationale ci lan. mel ni koy signé ay contrat gagnant gagnant lii nii kan la mën a convaincre loo xam ne démb dafa amoon problème sax pour approfondir acronyme bi mu joxe amoon na problème pour expliquer ba lépp lu mu doon wax sax mujj gi da ko mujjee daa fàtte assemblée nationale yóbbu ko foofu ñuy woowee maire de Dakar yóbbu ko mujjee koo yóbbu maire de Dakar. Mhm. xam naa luñ defaroon la ci maire de Dakar ñu ñëw ba élection législative di dem campagne. Mhm. Sénégal yépp xam amuñu programme nga dem ba. maanaam vote bi scrutin bi des deux jours deux jours nga bëgg présenter ni am ngeen programme. Mhm. yow yaa démb ngay door a xam ne am nañ programme bu tudd Sénégal man démb laa koy door a xam keneen ak keneen démb la koy door a xam ñaata jours lañ def campagne mosoo ko dégg parce que amuñu li baat li mu jaar doon wax démb du programme lu ko neex la mu ne naa ko yóbbu plateau wax Sénégal ñu wutee tuddee ko acronyme e bi ñu def ci lii nangam ñu def ci lee def développement personnel génne ay caractéristiques génne adjectif mhm. mais loolu du xam-xam mhm. comprendre mhm. loolu du xam-xam man à un moment donné dama ne ñii nii ñii nii ndax ndax ay ndax ay intellectuel lañ parce que Barthélemy Diaz fu mu nekk malgré jàngul Bougane nekk fa jàngul Thierno Bocoum jàng na euh, Pape Djibril Fall jàng na Anta Babacar Ngom jàng na ak keneen ak keneen léegi ñoom ñoo dajaloo bind projet bi même pas à rédiger un programme mën mënuñu bind programme ñoo ñëpp boo leen dajalee mënuñu bind benn programme. Mhm. li lay wane ne programme bi amul. lii Sénégal gu mu tuddee acronyme wax si lu ko neex loo xam ne bokkul dara ak lu war a xew assemblée nationale. Mhm. pendant ce temps moment bi muy wax moom pendant ce temps Bougane Gueye mu ngi woon si beneen télé. waaw di joxe beneen programme. <laughs> oui ñu ne Bougane ban programme ngay joxe muy joxe ay Maam Ndiaye Maam Ndiaye Savon comme mhm. programme. Mame Ndiaye Savon yi waaw programme programme mu Bougane moom Bougane dafa waa Sàmm sa kàddu xam nga doom duñ déggoo ci ay wax. Mm-hmm. lii rek day firndeel ne amuñu programme. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. déggoo ci ay wax mooy tey Sàmm sa dañ fa nekk noonu rek waaye bu ku nekk après da ngay génne wax sa yëfi bopp. loolu day firndeel ni amuñu dara amuñu programme amuñu dara amuñu itinéraire amuñu dara ku mu neex yow yaay def li la saf bi baat Barthélémy Dias nekkee TFM jàkkaarloo Pape Ngagne Ndiaye. Bougane géey mu ngi woon foofu ca wal fajri jàpp jàkkaarloo Pierre Edouard Faye ñaar yëpp seetaan naa leen damay seetaan télé bi teg ci téléphone bi di seetaan fii di seetaan fii di noté fii di noté fële Bougane géey moom li mu indi comme programme démb mooy Mame Ndiaye Savon mhm. Eumeu seen ak TikTok kële dem fële indi comme programme Sénégal Sénégal wax lu ko neex te te Bougane li mu wax ci ci ci programme bi loolu dafa loolu dafa reetaanu dafa non balaa ñoo dem ci Bougane ndax yow da nga jàpp ni programme Barthélémy Dias bi Sénégal kese ñoom ñëpp dañoo boole seen ay ko wala Barthélémy Dias ci boppam moo toog moom neex ko mu bind projet Bart lu mu prévoir woon la foofu ca maire de Dakar ah, lu mu prévoir woon ci loolu ca maire de Dakar la développement personnel la loolu la bëgg jël nag bu dugal ci contexte élection législative te manul ne li mu doon France xam lan lay wax bu doon grand dañ naan la faute de syntaxe la maanaam ni mu placé mooy baaxul. Mm-hmm. acronyme bi jël li ne lii lay signifier. ay mm-hmm. erreur de syntaxe la. mu ngi mu tey Sénégal nga mu neex la rek nga ne S bi ko tuddee tuddee ko benn mot en mm-hmm. e nga tuddee la neex mais baa am na sens amul sens. d'accord xam nga fi mu fi mu ne social su ma neexoon ne société. wala nga ne Sadio. waaw kay mais amul sens li ñu def ñoo amul sens ci boppam. moo tax ma ne la ñoom dañoo toog rek wut seen Sénégal comme vision de 2050 am na Sénégal ñoom ñu ne dañu tudd Sénégal. Mhm. wax ci dara mu nuru acronyme. Mhm. léegi lool ko wax ñu ne loolu suñ programme moo tax démb dafa amoon problème sax pour approfondir foofu ca euh, euh, si si acronyme bi ñu yor sax mënuñu ko approfondir. Mhm. mu ngi noonu. comprendre. wax naa ko fi benn jour nee naa leen assemblée nationale ñett yi lay def. Euh, nu voter les lois. voter les lois donc mu ngi nii ay waaw waaw moom la moom laa wax naa ko fi benn jour. voter les lois la assemblée nationale. def mhm. contrôler l' action n' est ce pas du gouvernement. Mhm. ak évaluer les politiques publiques publiques. Mhm. politique publique ñett yi la assemblée nationale di def. voter les lois contrôler n' est ce pas l' action du gouvernement. et évaluer les politiques publiques. kon gagnant gagnant gagnant bi wuti fa dara. lu mu fay def moo tax ma ne la projet lu mu prévoir. équitable defu fa dara projet. développement personnel. Mm-hmm. parce que li ma gis Sénégal. Mm-hmm. ni ko décortiquer maanaam acronyme bi loolu maanaam li nga ci jàng mooy maanaam defal nit formation si développement personnel walla si entrepreneuriat di ko expliquer ne walla ngay defal nit formation ci leadership indi benn acronyme. bu jël ci benn adjectif bu mhm. ne pour être leader il faut être nangam nangam pour être professionnel en ça il faut être nangam nangam ñoom loolu lañ indi ne loolooy programme loolooy programme bi léegi pendant ce temps keneen ki mu ngi toog ci beneen télé ñëwal ma ci bugaan laata nga laata nga ma ñëwal ci bugaan mooy jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan Cheikh Tidiane Diallo Boubacar Sarr euh, Khadija ñu jaajëfal leen bu baax Kandji ah jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax dal seen jaajëfal nañ leen maam Diarra Sarr yéen ñëpp nuyu nañ leen ah di leen yokk nag abonné yi di liker di partager aca Cheikh Tidiane nga ni ci euh, projet ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany pendant ce temps moment bi euh, moom Barthélémy Dias doon wax ne Sénégal mooy seen programme maanaam acronyme Sénégal si beneen anam bi yaa ngi gis keneen ku tudd Bougane Gueye nekk foofu ca Walfadjri jàkkaarloo Pierre Edouard Faye di waxe beneen programme finalement lan mooy seen programme maam Thiaye koo xam ne ci dara la tàmbalee ba tey mu am commerce am am notoriété mais c'est des gens qu'il faut booster un Eumeu Sène dans la lutte nga xam ne ci suuf la jóge dem ba yéeg ba nekk ci kaw mais c'est des gens yoo xam ne il faut les booster aujourd'hui un tiktoker comme Abilam c'est un milliardaire combien de jeunes tiktokers on a au Sénégal malheureusement état au Sénégal amul xel ak xalaat ne TikTok dafa war a fay booy tiktokeur yi nekk Sénégal. <laughs> mais déggul après li ko journaliste bi après journaliste bi am na lu mu ko tontu loo xam ne neex na ma lu ma neex la. Hmm. parce que hmm. Hmm. vidéo bi est-ce que est-ce que. waaw bu vidéo bi réeré dañuy yamane ci Bougane mu nga ma indil léegi. waaw waaw léegi parce am na ci ñoo xam ne dañ leen war a booster. léegi euh, léegi ci loolu nga yemoon mooy comment les booster c'est-à-dire avant ma yegg sax comment bu se mhm. mooy lii Bougane wax ni si sérieux lii lu sérieux la. Mame Ndiaye Savon. lii ay exemple type la. am seen. lii lu élémentaire li lii mooy seen programme lii lii. ndax programme la lii ah, non lii ndax programme la. un te ñu ngi koy tere ci réew mi ñu ngi koy mhm. tere parce que nekkul lu baax. Mhm. yow leader bu toll nii yow nga doon taxaw sax xeex xeesal. nga ne pour ñu dooleel lool yow loolu sa programme loolu la dooleel lool. sa programme nee nga Eumeu Sène mbër mu jógee suuf dem ci kaw léegi foofu lan nan la ñuy bussee Eumeu Sène te dañ koy dañuy defar defar ay. kii nan nan ay saal yeneen saal yu gën a bëri. TikTok. li journaliste li mu ko répondre laa doon wër nii TikTok xam nga journaliste lan la ko wax. Mhm. dana ko finalement da bëgg ñëpp nekk ay tiktokeur kan. nee na xale yi nekk ci tiktok bi dañ war a fay kon na ñëpp doon après ay tiktokeur kenn bañ a jàng kenn bañ a def dara. Mhm. nekk ay tiktokeur loolu mooy programme bu buggaan nga def ne réew mu sérieux dañu waxante dëgg réew mu sérieux yow ngay woote ne yow. Mhm. politicien wala homme politique nga wala ku radical nga. war ngaa ñëw jàkkaarloo Sénégalais di leen présenté comme programme ay Mame Ndiaye Savon ay Eumeu Sène ay TikTok nañ waxante dëgg rek si réew mu sérieux. Mhm. si réew mu sérieux Bougane lii nii war na ko wax. mais c'est c'est c'est compréhensible nag xam noo tax mu ne c'est compréhensible. parce que boo nekkee nit boo xam ne calcul mental sax mënoo ko non du sax calcul mental parce que lu mu bind indaale te ñëpp dégg nañ ko démb muy toog di wax di di wax loo xam ne xamu ci dara ba pare calcul ba mu def baaxul comme d'habitude noonu lañ koy bàyyi. kon kay kook tey kooku da da lay ne ki yore comptabilité foofu ca entreprise am. Mhm. maanaam ki yore comptabilité foofu ca Sen TV. kooku ñàkkul ne mu ngi koy bëgg a rey wala kooku bu muusee dina ko bëgg a rey koo xam ne mënta calculer. <laughs> non ku mënta calculer. Mhm. tey jii boo ne woon buggaan un plus un mu ngi égal quatre 1 plus 1 mu ne la égal 80. Mhm. comme ni mu def dém cent xaw ma cent quatre vingt deux mille la wax xaw ma lan plus deux cent cinquante mille joxe lu ko neex. Mhm. ak fulla ju bari. ñoo ñoo fiy taxaw ne ñoom ñooy opposé wu. ñoo xam ne sax calcul nga bind sax def calcul bind ko sax mënoo kooku mooy toog di wax lu ko neex. Mhm. te li ma leen di ñaan mooy ñuy waxtaan seen biir. ñuy waxtaan seen biir parce que démb Bougane wax na loo xam ne yow mi sax xam nga ne amul.

Baart moo loolu Bougane Bougane aussi wax na loolu. Bougane tamit Bougane la Bougane nee na man ak Baart après maanaam dañoo sey dem fanaani feneen. Mhm. yor naa ko sama téléphone. fekke wuñu daal waaw maanaam après dem fanaani feneen feneen wala yow loolu déglu fanaani feneen. si dem fanaani feneen loolu la Bougane wax nee na après dañoo ñoom ñoo ànd dem fanaani feneen kenn gisu leen. xanaa boobu kon après jaaruñu Thiès. loolu xanaa yeneen fan la même jour lañ jaar Thiès man ak yow ñoo ànd ba si ñoom. seetaan leen ñu ne après moom Bougane dañoo ànd dem fanaan moom Barthélémy Dias ñoo ànd dem fanaani feneen mais ñii kan la ñëpp wax ma ko ñëpp. dañoo foog ne nekkuñu fa. ñun ñii ñun ñii ñun ñii man yow ak ñu nekk ci rési bi. Fallouk Lamine Fallouk Lamine ñoo ànd dem ba ci ñoom seetaan leen. man dama dañoo foogoon ni ñun nekkuñu fa woon. loolu lañ foogoon xam naa xamul ne Bougane xam naa ñu ngi ñu doon xam nga ñu doon gis. waaw mais xamee ñëw gaa yi xamul ne gaa yi après ñooy toog leeral mbir mi. Mhm. buñ ko xamoon tam tam ñu ne garde yi jëlee leen fi ñii. bugaan moo yor micro yi tàllal ko Barth Barth yi wax. bugaan moo téel Barth Barth di wax. Thierno Bocoum ci ci ginnaaw. maa la lool léegi bugaan nee na. ñoom ci boppam bi affaire di xew foofu ca Saint-Louis moom ak Barthélémy Dias ñoo àndoon dem fanaani feneen. ñoom bàyyi nañu coow li ñële parce que li Assane Diouf wax la. Assane Diouf moo njëkk daw ah. si xëy na ci ngoon gi xamu ci guddi gi la ci ngoon ba tey lan. non heure bi heure exacte moom mën xam. 16 ngoon ngi ay 17h 18 maanaam bi ba bii vidéo yi di circuler mhm. ba mbir mi ba muy daw ba ci guddi gi. Mhm. ñun ñu ngi woon ci plateau bi fii. waaw ah, c'est lañ ko doon amee en direct. comprendre. Mhm. mais problème bi du lool de loolu du problème bi de. luy problème bi xam nga mooy problème bi. lan la mooy comment se fait-il. Bougane ni ñu. moom ak Barthélémy Dias ñoo àndoon dem fanaani feneen. loolu am pharmacie baa ko jiitu. te moom wa Assane Diouf leeral na pharmacie bu yàgg. Assane Diouf moo njëkk daw. xam la moo tax Assane Diouf daw. parce que Ousmane Sonko si renseignement yu yu yu net yi mu jot mooy lan. Mhm. Assane Diouf moo dégg commerçant yi naan Sonko Sonko Sonko Assane Diouf wàcce oto bi ne leen ku fi waxati sonkoo daggal. waaw comprendre. Mhm. ñee wax ñoom ñu attaqué leen. Mhm. dugg ci magasin yi jàmbur yi gor ñi jël xaalisu jàmbur ainsi de suite. comprends mhm. léegi Assane Diouf bi mu déggee lool xam ne yoon mën naa daal ci kawam mhm. mën nañ ko jàpp ci lool mu duggaat def beneen vidéo boo xam ne nee nañ dañ ko falsifié nee nañ dañ ko falsifié ban kenn mosu koo falsifié nee nañ du noonu wax nañ <laughs> ko ba affaire yi ni kuy yërëmtalu kuy waaye jooy mais Assane mhm. ko waxee ñun ñëpp am man mi sax amoon naa vidéo bi Assane Diouf ci boppam moom moo ne moo waat ne waa Saint-Louis sax mën nañoo def vidéo témoigne ne wàccewul deful dara benn yoon la wàcc boobu daal mu ngi gis bi buggaan di dem bu kii nii Barthélémy Dias bi mu dugg ci pharmacie bi nangam nangam pati pata léegi nag xam naa Bart dafa sentir ne Assane dugal na ko mhm. te pourtant Bart bi mu ñëwee Thiès da ko confirmé falal fekk ba mu naan li xawoon fee chifaay rek chifaay mhm. ku fiy def dollu chifaay chifaay ba Bart moom nangu ne agression bi fa am moom la wax na ko fii Thiès waaw lan moo tax bi ñu ñibbi ñu bip bip kii stoppé seen seen seen convoi bi jël fa ay ay ay ay ay yoo xam ne mën naa gaañ nit lan moo tax bip arrêté n'est-ce pas seen seen seen garde yi lan moo tax. dafa amoon ku deful dara dañ la arrêté. léegi nag bu buñ toogee nag moo tax ma ne ñoom sàmm sa kàddu duñ déggoo seen biir ñoom sàmmuñu ñu seeni kàddu parce que amul déggoo seen biir ci ay waxtaan. kii dañuy wax lii kii bu demee plateau wax la le kii wax la le kii dugal moromam kii bëgg set kii dugalaat moromam noonu la dundee. xam naa dañu dul def waaw dañ dañoo di def réunion nag. parce que Bart def na vidéo ne loo leen gis man la lu xew ci caravane yi man la Bart wax na lool. Bart wax na ne lu ma bëggul woon def laay def dem tëdd sama kaso mu ne Ousmane Sonko bu fekkee 83 morts yi doyul waaw dinaa def lu mu bëggul woon def dem tëdd kaso. ba pare ne lu leen gis ci lu yi man la moom moo avoué lool. waaw kay naa ci yooyu yëpp. yaa ngi comprendre. Mhm. Bart moomu nag démb moo toog télé. Mhm. ni élection yi kenn rek moo fi benn parti rek mooy provoqué waate muy waa kër Ousmane Sonko. nga def li nga xam ne loolu ay mbalaak la Barth mu dem bay wax loolu noonu. lépp bëgg a daw say responsabilité mhm. daw say responsabilité moo tax nga dem ba TFM di yërëmtalu ci côté. mbaadu arme ya ñu gis ci ñoom moo tax. fi mu moo tax euh, moom moom nangu na ne moom di yor ngi dem bay tumal Ousmane Sonko sax naan maa ko jàngal ni ñuy chargé ñuy arme affaire yu demee noonu ba mu ñëwee sama kër. Mhm. ne dañ koy bëgg a rey ak yooyu noonu. ba am nga njaay mettre que devant l'épreuve ne ko kon loolu ci am sa responsabilité la mu a di commencé daw question bi comprendre parce que tey jii Barth moo la gën a xam ne Barth de sax démb nee na la fa am moo ko jënd mais dañu ay pistolet ku gis ñoom ñoo si dugal parce que amu ci woon ay pompe à gaz moo ci nekkoon ay matraque ainsi de suite. moom nangu na moom moo ko jënd moom Barth. d'accord moom ba pare tuumal waa ko Ousmane Sonko ne yor nañu ay arme mel moom moo ko gis. que yor na yëpp ñëpp ñëpp dinañ yor. tey nag kooku génnaat na tey Barth nekk tey Selbé Ndom. loolu daañu ci ñëw waaw kay très bien mais li ma li ma bëggoon nga <laughs> bëggoon nga xam nga. xam nga baat mooy xam nga tey bu amee bu ñu waxee ci moom. bu bës bi di bëgg daanu. Mhm. xam nga tey gars yi dañoo jëloon Tahirou Sarr. waaw ndax li Ousmane Sonko waxoon démb Tahirou ñëw wax ci. Mhm. am lu ko metti di ko génn mhm. Bart xam ne fàtte nañ ko Tahirou moo dugg ci combat bi léegi Bart ne kenn du fàtte noonu baal ma dem fële comme keroog keroog keroog balcon laa nekkoon mënumaa génn mhm. tey nee nañ suñu caravane mënta génn mënuñoo dem Dakar parce que te ci ci balcon bi wax na ci lu garaaw parce que nee na doomam ji nii dañuy porter plainte parce que démb seetaan naa ko dañoo yab parce que bu demee ba ni dafa am ñaari doomam yi nekk États-Unis keroog dañ ko doon woo téléphone naan ko papa di ko xamal ne ko réew mi nan la mën a demee ba nit am sañ-sañ mhm. ñëw sa buntu kër barricade ko ne la yow doo génn ba pare nit di ñëw di attaquer sa kër. te kenn waxu ci kenn tëju nit na la mën a amee sañ-sañ googu. bu doon États-Unis dañ lay tëj. mu ne ñooñu seen yaay mu ngi ci kër gi. te seen yaay maanaam ab Sénégal juru ko. léegi nee na sax benn doom bi porté na plainte foofu ci États-Unis man ba mu waxee loolu laa xàqataay damaa daanu. <laughs> nee na benn doom bi maanaam ñun suñu réew ñun Sénégal. ñun ñu moom suñu réew. nekk pays indépendant. moom suñu bopp. Bart nee na benn doo bi. moom